Euh, moom xalifa bi ma ngay dellu siwaat ci gouvernement bi mu ne bu fekkente ne ab gouvernement amul oppos ab opposition mhm. nañ jàpp ne kon gouvernement boobu la du dem fenn noonu la ko yéenekaay gi di Walf Quotidien xëye fësale leneen itamit loo xam ne yéenekaay gi di Walf Quotidien xëye na ko fësal Abdoulaye mhm. euh, mu Yaakaar bi nga xam ne jamono ji ñu ngi wër ngir euh, wekk seen yaakaar kenn ci ñoom su ko def daal di koy jiite ci élection présidentielle yi di ñëw ñu bari nag dañuy ne Amadou Ba la Euh, tàmbali na ko jamono ji dafa jël décision ko dëddu lekk nan doo ko ndox la wax ne du ko jàll si boolem budul ne euh, ngir ñaaw rek décision bi nga xam ne euh, nguur gi jël na ko daal di ko tëj ci kaso bi de mm-hmm. euh, ci jamono jojule ki nga xam ne ni moom moo di Pierre Goudiaby Atepa jàpp ne Ousmane Sonko rak la ci moom jarbaat la ci moom ba ci appelé ab bataaxal mm-hmm. di sàkku si moom daal mu dakkal xiifal gi nga xam moom lay xiifal delloo na ko njukkal nag kañ na ko ci taxawaayam ci biir réew mi mu ngi ci yéenekaay kaay di di Le Quotidien yéenekaay gi di Le Quotidien dafa xëyee dellu siwaat ci Ousmane Sonko miñ ne dañ ko évacué fële ci hôpital Euh, yéen kaay gi xëy samp euh, yéen kaay gi nag xëy amal ci ab taxaw seen dossier sans fin noonu la ko yéen gi xëy fisale mhm. euh, yéen gi ne dafa def malaise Sonko jamono ji neexul ba neexul bu fekkente ne sukkandiku ni ci yéen kaay gi ne dëddul lekk comme niñ ko yaakaaree mhm. ndax samedi yi maanaam samedi bërki démb rek ndekki na ba suur mhm. mi ngi ci yéen kaay gi di le quotidien le quotidien 24 heures ci xëtam yéen kaay gi di 24 heures xëy ci Ousmane Sonko mi ñu ne ma nga urgence ci hôpital principal bu Dakar Sonko nag jamono ji Euh, wér-gu-yaram demeewul noonu mu ngi ci yéen a kaay gii di 24 heures. yéen a kaay geneen di l' évidence. Euh, l' évidence xëyee fësal njàqare gi mu am gi mu am jëmale ko situation bi nga xam ne ni Ousmane Sonko mi ngi koy dund jamono ji Ousmane Sonko dafa dëddu lekk ndox la wax ne du ko jàll si booleem budul ne situation euh, bi mu dund jamono ji dañ a kaay nag ne neexul ba neexul waaye situation jamono ji situation wér-gu-yaram Ousmane Sonko doy na waar mi ngi ci yéen a gi di l' évidence. a kaay laas lu ñu dégtal. bu dee yéen a di laas moom dafa xëyee dellu si waat ci arrestation kii du Juan Branco doon kenn ci avocat Ousmane Sonko yi euh, ca gànnaar la ñu ko tegee loxo dellu si waat ko fii ci biir réew mi yéene kaay gi ne meli melo comme ni ko duppee euh, mm-hmm. mujjee nañ koy teg loxo mu ngi ci yéene kaay euh, le peuple quotidien yéene tamit xëy dellu si ci lu ni ne Juan Branco ña nga koy jàppee fële ci Mauritanie mm-hmm. rapatrié ko fii ci Dakar Juan Branco bu mu ñëwee daal dañ koy dañ koo takkal ay bagasam mm-hmm. yóbbu ko rëbës mu ngi ci yéene kaay gii di le peuple Seydina Omar Ba yéene kaay geneen di réew mi quotidien yéen a kaay gi di réew mi xëyee tey ji dañu xam ne ak ki nga xam ne nii moom moo di Juan Branco parcours am mhm. euh, yéen a kaay gi du pek parcours du combattant Branco noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale si euh, a kaay gi nag de Rosso ba keroog bu muy ak rëbës mu ngi ci yéen kaay gi di réew mi yéen a kaay geneen ci xëtam bu njëkk euh, di la libération libération ci xëtam waa libération ne gannaaw ba ñu ko transféré yóbbu ko fële nga xam moom ci ci rëbës mhm. kii di procureur nag jamono ji am na procédure yu bees yoo xam ne ni ubbi na ko jëmale ko ci kii ci kii di Juan Branco mi ngi ci yéen kaay gii di Libération. yéen kaay bii di critique yéen kaay gii di critique xëyee dellusiwaat ci lu ni mel ne Juan Branco waaye ji nga xam dafa dawoon làqatu ji. Euh, mujjee nañu koy euh, teg loxo maanaam mujjee nañu koy teg loxo yéen kaay gi xëy fësal lu ni mel yéen kaay ne avocat français bi neexul ba neexul waaye jamono ji mu ngi dund ay jafe-jafe yéen kaay gi moo xëyee fësal loolu yi yéen kaay geneen Seydina Omar Ba ci xëtam le mandat dafa xëyee dellu soit ci modification bi xam ne indi nañ ko mu dem soxal mhm. euh, code électoral bi Karim Wade ak Khalifa Sall léegi nag wér na dañuy bokk ci élection présidentielle yi di ñëw yéen kaay gi kon ci loolu la xëyee tey ji yéen a kay euh, génneen ci xëtam Sud Quotidien ah, dafa xëy dellu soit ci projet de loi mu soxal coppite euh, euh, yi nga xam ne lañu indi ci code électoral bi li Karim Meïssa Wade moo xëy fesal moo ne indi woo moom ko ci day ci kayitu wataakoon yi mm-hmm. ci sart yi nga xam tënk élection yi mujjee nañ koy amal yéen kaay gi di lee fa kon ci loolu la xëy tey ji daal di ci amal ab taxaw seetlu Seydina Omar Ba yéen kaay geneen tribune neen neexul ba neexul waaye Sénégal moom kenn xamul ci lay doxee Macky dafa jël ay sàcc réhabilité leen maanaam dundalaat leen ci jamono jooju la ko ngi jël koo xam ne dara maanaam sàccul deful dara mhm. jël ko daal di koy nëbb ci kasse bi te mooy Ousmane Sonko noonu la ko yéen kaay gi di la tribune xëyee fësale yéen kaay euh, geneen di yor yor waaye yor yor dafa xëy dellu si waat ci gàcce nga xam ne daanaka am na ko jëmale ko ci assemblée nationale ak it euh, neexul ba neexul waaye liggéey yu salte yi nga xam ne lañu nekk di def Euh, gannaaw nag bañ ko jaaralee euh, ci euh, maanaam daal mu soxal Benno Taxawu ak Wallu mhm. daanaka daal seen bëgg-bëgg rek moom moo leen ñor moo tax daal ñu def liggéey bu ñaaw sax noonu la ko yéen kaay gi tëddee yoroo xëy xëy xëy fësal mhm. ba tax tey ji mu amal ci ab taxaw seetlu ma ngoog taxaw seetlu geneen ci wàllu lamb ci waaw sunu lamb lañ koy jeexalee dafa xëy dellu si waat ci premier défaite bi nga xam ne ni bu se saaxool bu se ka mhm. moom am am na ko ci kanamu kii di rëg-rëg Euh, keroog nag la ko la ko la ko daan maanaam la ko duma daan ko euh, mu nekk na combat boo xam ne combat bu amoon solo la MMA la Euh, léegi daal fu mu toll Reug Reug moom euh, gannaaw bu mu génnee ci combat boobule jox nañ ko ci lu ci tolloog fanweeri million ci franc CFA euh, moom nag ne Reug Reug bu deful nank def ni bombardier man daal dana bàyyi lépp aju ci wàllu lamb fii ci Sénégal consacré ci MMA noonu la ko yéen a kaay gii di suñu lamb xëyee fësale waaye lottoon na lool <laughs> ndax cour yañ ko dóor waaye nag ko bëgg ñandi gëlëm foog nga jot saa su ay xibaar yu wér wóor aju ci réew ak ci bitim